assalamualaikum maa ngi leen di nuyu di len sant man maa tudd Sila Sidibé ñu ngi woo Sila nak action ci kon bi dépôt près de école maa ngi leen di sant di leen gërëm kontaan naa seen teewaay ñu ngi ñëwee ci man yalla na sen liggéey dem ci kanam ni sawan bawon man dal wax deug yalla je suis une femme. douze métiers yàgg naa jaay ça fait vingt ans maa jaay waaye chaque période ak jaayam am na ñoo xam ne sax dañ may woo femme battante na ñoo xam ne dañ may woo femme douze métiers parce que nit boo génnee li doon rek loo téye dina dem mën naa ci sama deret la nekk parce que nit bu sa nelaw nga xam sa bopp boo xamee sa bopp moom doo sonn yàgg naa si njaay bi chaque événement ak njaayam bu fekkee korité yére xale laay dem jël bu fekkee tabaski na indi ay yére xale ay tissu di ko jaay bu fekkee ouverture pré école bi laa nekk muy école dépôt wax dëgg yàlla ñoom tam ñu may félicité bu baax parce que seen fourniture yi laay jaaye fourniture école décembre bu ñëwee mu ñëw ci cadeau de Noël yi moo tax gars ñu may woo si la nation une femme battante ma ngi leen di remercier waaw bu fekkee du ay événement jawbe lay commencé man bañu ma dara ñak rek lay bañ bu ma demee jawbe damay jënd ay fruits ay mat lepp lay jënd bu fekkee ay pendant de vacances vacances bu ñëwé ni ay gert saaf ko jënd ay mbokk lakk ko en tant que ñu may woo si la animation damay lakk mbokk di ko jaay nit ni di saaf gert di ko jaay wax dëgg yalla liggéey bi maa ci siy parce que maa ngi koy yëg sama bop xana xamo ki ki loxo ci poos fa sa soxla dara dàqu ko dara dàqu ko wax dëgg yàlla liggéey dafa métti parce que lu tax liggéey métti boo nekkee si liggéey surtout ma commerce commerce tur bi dafa yomb waaye c'est très difficile ndax lan boo nekkee si commerce ni amoo ku lay jàppale day difficile wax dëgg yàlla commerce tur bi moo yomb waaye def bi dafa difficile parce que lu tax day difficile commerce dafay de dajale xaalis moo jafe commerce jafewul de boo amul ku la jàppale si suuf moo jafe parce que yow yow kenn boo waxee da ngay commerce yow kenn rek ah du ma ne doo dem de waaye de moom day yàgg parce que bu fekkee ñun suñu bopp ñooy may suñu bopp kenn du ñàkk waaye suñu borom bi mooy may man de may na parce que man maa ngi sant yàlla maa ngi koy gërëm bu ma génn day jar kër balaa nga koy tabax fondation la laaj boo defu kër fondation de du mun a yàgg su ne vingt ans du vingt jours de tey tey bu ma amoon ku ma doon jàppale si suuf sëf dépassé naa fi bu yàgg sëf tabax naa étage laa la wax ma ministre laa ñu may wax annexion pour annexion bi tamit du keesoo li may yëngu si kii jaay bi kese plan action bi dama yëngu ak politique moo tax ñu may woo femme du métier politique tamit bu ma commencé yëngu boobu da ngay may boobu rek la xamoon njaay tamit la moom ouverture maa ngay kaye décembre maa ngi ramadan ndabu jéegi korité la même chose tabaski la bu fekke école tek ñun ñu ci vacances vacance maa yoon jaay be di dem indi ay fruits wax deug yalla njaay bi ma ngi sante yalla bu baaxa baax parce que ma ngi sutura sama njaboot di sutura sama yaay deug yalla yag na jaay ba baye école bo gisse tammi ma baye école engagé si njaay bi pour courage parce que li la yalla xam doyna bo xamé sa situation parents ni ñu mel il faut nga fas sa digg loolu moo gën a tax ma arrêté njàng bi continuer njaay bi pour sutura suñu waa kër sutura sama famille wax dëgg yàlla. ba ma duggee école ba léegi seen la arrêté ndax dama xam sama situation parents yi waxe damay continuer day difficile moo tax ma arrêté fas jom dugg si njaay bi pour ñu sutura suñu bopp ba yàlla li ñuy def ba ma duggee si njaay bi ah yàlla mi may sant. may sant yalla bu baax baax may ngi sutura sama bop man ni sama dombu ndaw bi dugal nako école privée muy SES ni C2 mu toll nii te sama njaay bi mom lay fayé ko han ah, lool bo gisé ma def lolu sax pour avenirum am mo taxé té coono buma gis ñom ñu bañ ko gis wa dëgg yalla dugg na ci mbir bu bees bi ah mbir bu bees bi ñam wax dëgg yalla macha allah. macha allah si nguur bu bees bi waaw ñun daal dañuy ñaan comme commencé nañu dugg nañu si bisimilah arrahmaan rahim ñoo ñu continuer ko alhamdulilah rabi alamin waaw. sama mag bi su lu koy xam ci jàmbaartam laa ko xamee liggéey guddee wàcc faale dërëm kenn ñun ñi sax ci moom la ñuy rootee boo gisee tey ku nekk di teg taabalam ci moom lañ ko gisee. bu ñu ba ci moom lii lañu bëgg day ne liggéey leen ngeen takk seen ndigg loolu laa xam ci moom maa ngi wax sama mbokk jigéen ñi liggéey baax na képp ku topp liggéey eh, doo si rëcc wax dëgg yàlla képp koo xam ne liggéeykat la nga jàpp ko sa fukki loxo ak juróom parce que eh, làmb sa poos fas sa soxla jar na liggéey bu dee loo yëg di nga am maa ngi remercier Seydou bu baax a baax Seydou Kam tante bu baax a baax ñoo fowandoo te amul benn problème am na yéen a mën si nit maa ngi remercier Tamba TV yàlla na seen kii rajo télé yi dem si kaw a kaw saawan baawan